ci élite fitness bi euh, yaakaar naa ne du ñàkk bis nga dem LT fitness parce que ñoom coach Lamine ñoom coach Ousmane ñoom coach Cheikh gars yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax ñoom Naar Fall ñëpp maa ngi leen di kontaane eh Didi mel ni sport bi léegi ay danse ak yooyu yëpp da cee dugg de mais xam nga fii Sénégal su bu nu ma ne sax Sénégal fépp ah looy def boo ci boolewul fan mhm. bu sérieux torop rek nit ki mhm. mais sport bu neex ñu tegal la musique bu neex abaa ngay fecc di zumba mhm. di defar sa ay partie yaram comme ni nga waxee fu nekk nga def fa li fa war donc loolu élite fitness vraiment keroog jox nañ ci ba ñu doyal donc euh, ñoom ñu ngi wax ñu si bëri ñu ñu interviewé si jigéen ñi ñu ngi wax naan ñoom dañuy ñëw ay week de temps en temps wala zumba bi wala yeneen ak yeneen bu ñu paree soo a yeggali parce que loolu day dindi sa stress dindi li nga xamante ni moom nga xalaat ci semaine bi yëpp bu dee dañ la sonal ci sa bureau boo demee fii lépp day dañ et puis li ñuy proposé bëri na Abba No Stress li ñuy proposé barina na bokk na ci tapis yi bokk na ci euh, comme ni may waxee sànq step bi bokk na ci yeneen ak yeneen donc euh, variété am na te activité la boo xamante ni ça peut se faire en groupe ñun ñëpp mun nañ ànd tey dem ne dañuy mhm. def cours zumba ñeneen ak ñeneen mën nañ ko def yéen góor ñi faratu farataalu leen ko mais c'est pour tout le monde mën ngeen ko def en couple aussi ak coach Alvin mi nga xamante ni moom moo nekk foofu te euh, nu ma koy waxee du ma dem te waxuma si ñoom ñi nga xamante ni dañu may quatre bons d'essai donc quatre bons d'essai yi ça dépend de vous mën nañ ko jël dem ñun wala comme mën nañ ko may ay téléspectateurs yoo xamante ni tey yitte woon nañ ko wala am nañu envie tey dem essayer cours yi moom la waa Elite euh, leen bu dee ñu ngi ñuy ne ñu ngi koy seen suufu écran mën nañ ci woote ay fukki junni fukki junni laa fi teg euh, teg ko euh, pour ñoom rek euh, ñoom ñoo ko moom donc mën ngeen dugg ci weekend start ngeen mën a tey ji booy yow mi demoon ci salle bi tey jii sa priorité teg réponse la direct tontu comme waaw comme laaj bi la direct mm. tey jii boo demoon ci salle bi taj sa priorité looy defar yow sa yaram man baa baa bi mooy fan mooy cuissier yooyu rek. <laughs> am na loo tëb de Fall. Fall mooy cuissier yooyu maa ah, euh, tey priorité ci yow nga dem salle teg lan ngay njëkk a defar. I'll work on my hips. hips mooy. ah, ah waaw ah, waaw eh, man mii laaj loolu noonu <laughs> defar ci salle euh, very important very important. waaw ci to be continue bonne continuation. thank you. <laughs> Euh, man nag dama bëgg. cardio man bu ma demee. Euh, sama xol lay man sama xol laay defar. Euh, ba pare ba pare xam nga defar les pectoraux xam nga defar loxo yi avant bras yi xam nga ak. <laughs> ba léegi. <laughs> didi kii bi euh, Zumba ban façon kii lay defar like général général body workout la wala ban façon. cardio cardio la gën a doon général bari workout parce que di nga fecc di nga defar sa ay tànk di nga defar sa ndigg di nga defar. sa loxo yi yëpp ndigg bi and stuff waaw day am waay ni nga yëpp vraiment ku ci bëgg rek vraiment man conseil conseil naa Zumba a tout le monde surtout au ñu demandoo defandoo ko mais day fan day neex te day am ambiance boo xamante ni vraiment ça te te dina tax nga ñëwaat. am na espace pour ñun ñuy mhm, mhm. <laughs> am na solo pour ñu ñuy seetaan am na solo en tout cas am na solo mais man euh, bëgg naa xam mais man bëgg naa xam activité euh, bi nga xam ni mooy tax euh, xale yi ensuite di gën a baax yaakaar naa ni ay ay kii squad la waaw mooy hips yi rek yu wokkoon yoo. ak squat da ngay sukk ba ci suuf. non di jugaat waaw waaw waaw non Abba mais yow da nga mën squat doo ñu wan ni ñuy squatter. Eh, eh, eh, ah? ah? du ma bu la neexee bu la neexee mën naa am lu ma yenu. su la neexee mën naa taxaw ni ah. euh, waaw taxaw ni waaw waaw. non Abba waa tëjal tànk yi tuuti. ok sóoraale table bi sóoraale tam. ñu sa ginnaaw ngeen baal ma lépp lu xew maa ngi koy jégalu. waaw ñu sa ginnaaw ñu sa ginnaaw lu xew rek maa ngi koy jégalu. <laughs>